mais madame kamara tey nii nga def nii nga def nii nga def nii nga def nii nga def nii nga def madame Camara nii nga def eh, kaay kaay kaay kaay eh, kaay kaay Paris nga nekk nag ah Paris nga nekk ci en Paris <laughs> madame Camara mais kenn du yow barke Serigne Bamba jéeg bi sagal jëkkëram jéeg bi sëy sëyam bi toog muñ demul dikkul demul fu ñu ko woowul demul fu ñu koy xeebee madame Camara en action l' international. maanaam kaay kaay kaay maanaam danga may gëstu nag xool ma retaan ma tuuti sax may kii nii barke Serigne Bamba lii lii lii yaa yaa yaa yaa yaa yaa yaa yaa waaye yaa yaa yaa madame yaa ñu nga waaye. mais madame Camara Camara il est baba mais mais mais madame Camara nag je suis fier de toi hein mais man. je suis content soo sama lex yi ni mu bellee nii ak sama bakkan bi ni mu yooyee nii nga xam jàmm rek laa jabar ju baax loo ko jëndee jar na ko barke Sëriñ Bamba toogal mu toog yamal mu yam kaay mu ñëw bul ñëw du ñëw lekkal mu lekk naanal mu naan bul lekk bul lekk naa bul naan du naan jabar ju baax mi ngi nii waaw ba dara dara la nag gars yi ba dara la de kii maag moom lu yow kii kii ba may koy jël comme squelette vivant moom it bi may nopp kom ñoxor ngolle mais madame man li gars yi tal talu ma ko de ay ay wax lu so yoon néewul ay mer déedéet man no stress